nag jotaay bii dafa bokk ci jotaay ya nga xam ni day dëggal la bàyyi laay waxoon sëriñ ndakaaru fii la woon place bi moo dox secrétaire yi fi nekk dañu ko dañu ko morcelé jaay ko mais fii mooy mbenja mbenj dóob boobu ngay dégg fii mooy mbenja mëndooy mbenja moo nekkoon chef de village bi sama maam la bokk naa si ñi koy doon mëndoo yu mbeñ place bi mooy dox bu aksi fii ñu ne pencum yoof foofu la bàyyi lay recevoir a woon jëli bëkk jëli bëkk lu ko andi woon mooy dafa dégg si écho personnalité étatique yi ñuy ne dañuy arrêté maam Seydina Limaamu moom mu la fi amee mu ñëw seet sa maam Baay Laay naka sa nga xam nga lu ma bëggoon taaliba yi nga yebal leen nu ñibbi mu ne ko ah man mee dem suñu borom te ni yàlla yii ñëw di xewlu ci man ma di leen yabal ma wax ne nag suñu gataay bii bokk na ci la dëggal la Baay Laay waxoon

fekk na bàyyi laay jot na ndigal suñu boroom ndeke génnal dëkk bi jotaay bi ñu toog am na ñeneen ñu ñu ko dëggal mooy njaboot ak alimbaay anañu awaluhum Ceerno Saar aminun ixwatihi wa demba mbaay muxsinan salaatu addaati suma abdoulaye samba aydan alimbaay an njaboot ak alimbaay alimbaay wuhumo خير الرافعه له نهال الجنات اول هم تشار نصار من ما يستب تشار نصار سندايم اكسي بايم كون ما ما في اوتو سلولو ويسو مو خمنا جوتاي بوبو ام تيجي سي ستياتي ستاتي نجابور غوغو بوكن سي لي كونفيرمي بوكو سيدنا الامام دو دنج نجابور علي باي ني njaboot ak Demba ngi nii njaboot ak Cerna Saara ngi nii njaboot ak Ablaye Samba ngi nii toog kii maam Ablaye Samba moo muur maamam sa ëttëb ndooyeen kii Ablaye Ablaye Samba maam Ablaye Samba bokkul woon ci ñuy dem ci gàddaay gi dafa toog këram fekk maam Ablaye Samba mën loo def ci li lu mu yëgul ndijaayam la ci meen ndijaayam la ci gaño mu ne man Ablaye Samba man di jaay nekk ci neen man Ablaye Samba may tëdd ci lal dafa forcer pour défoncer les portes pour fekk ji maam li maamu wallaahi xamula bi maam euh, Demba Mbaay ñu ñëw Baay Laay waxoon na nañu andi sëy naa Mandione ndax ma Mandione fu mu fu mu teew rek aw ay du am Demba Mbaay moom moom moo dem ba mu ñëwee maam seeni bu jën moo boot maam Seydina Mandione loola ñooña ba mu amee la maam Ablaye Samb dégg ne ñëw nañu fi sa da leen topp mu mel ni kon la bàyyi laay waxoon na ngi nekk dëgg ana sëtam Ablaye Samba mu nga nii toog man maa ngi nii Ablaye sàmba sama maam la wax dëgg yàlla waaw ah su ko defee li nga xam ni ah moom ngeen taxawal tey te yoof jëpp bokk ko yoof jëpp ñoo ko bokk maam li maamu ku tàllal sa loxo bokk maax moom dara c'est parce que dëkkuloo fi maam li maamu ku dëkk yoof rek sa mbokka bokkaam nga waaye nag yàlla dafa dogal li ma am kumbandoo ya ko jur kumbandooy dafa am dafa am atte bu mu juddoo atte ba mu juddoo nag mu bokk ka ak góorgindooy bi nga xam ne wax dëgg yàlla ku xam maam seen alimaamu xam nga maam góorgindooy góorgindooy ya ko yar góorgindooy ya ko yar yar wuy juróom ñu nekk si benn kër njaboot googu nag ñoo fi toogoon sànq bay soo moo fi des góogi ndooy moo jur dawur ndooy dawur ndooy moo jur abdoulaye ndooy moo jur amadou baro moo jur kumba ndooy mi maam góogi duppe kumba ndooy yaay limaamu maamam waa ji toog Seydi Gueye mii bi mu ñëwee dama ko wax ne yow fële gaa yi toog fële mooy sa place waaye fii beneen affaire la ndax yàlla mu ngi dogal ñoom Mamadou Lamine ak ñoom maam libaas kii seen mag loolu la yàlla dogal moo leen jëkk juddu loolu la yàlla dogal waaye ndamit fee de am na fa am na fa wàll de ndax kumba ndooy moo jur ay te caw moo jur njaga caw mii mii pap caw daal di dem léegi ñu bokk ndey ak baay koddu nag moo jur maa jigéen caw ñu jur yaay ra koy juuf yaay ñoom njaay kura ah nun nag nu ñëw man maay Amadou Baro bàyyi sama mooy Ablaye Ndooy mu des Daour ndooy Mbaye Ndiir yal yàlla féexal yaram wi waaw kooku ah Mbaye Ndiir ah d'accord ab jarbaatam a ngi nii Daour Ndoye su ma yu xadiisu ibnu xaali Daawuda Ndoye inda riyaadati xam ma xal imam ah Moustapha daf ma wax na ma am di Moustapha mu ne ma waa Ndoyeen man dama seetlu orma bi ñu jox waa kër maam Seydina Limaamu gisuma ku leen ko jox ma ne ko Moustapha xanaa xamuloo ne sunu maam bii muy foon loxol Baye Laay boo ko Baye Laay ooteegul sa xamsaan la maam Dawur Ndoy na groupe si tànkaam foon ko foon ay loxoom pourquoi parce que maam Baye Laay wan na ko lu ñëwagul wan na ko lu ñëwagul wax na ko lu ñu xamagul muy secret oote bii maam Dawur Ndoy amul lu mu ci xamul. te lépp mu nga xewee xam saat te moom moom Maam Baay Laay moo am initiative naka dawur dama bëgg nga gunge ma dem xam saan bi maam Dawur Ndoye gis na ko ñaari voies yi maam Dawur Ndoye gis na ko aéroport bi maam Dawur Ndoye gis na ko te booba nekkagul waaw kon nun nun waa Ndoye lu nu war xalangu ñu ne loo war bërëngu ndax sunu maam def na loolu gëm na seen alimaamu to bàyyi laay wooteegul ah su ko defee nag mbay ngeen may jégal la sa des ñu bàyyi ko ci sa programme waaw ndax mën naa tarxiis dugg ci sa programme alors te warul mu dañuy war a fàkk rek kii toog moom laa décidé woon pour jox kàddu gi mu wax ci kàddu ndooyeen ñoom ñii nga xam ne ñooy ñii tëral guddi gii tey ak ku ko mën a tëral ci kaw suuf ñun bu nu ko mënee dinañu dem ànd ak yow ndax kat yàlla mu ngi dogal kumba ndooy ah du ma ne kenn appalewu ñu si de waaye am nañu sib cër de ndax ndooyeen la juddoo ndooyeen la julloo fa la génn àddina booba nga poroo ngi fii mbenja gi may wax léegi booba nga paroon ko féete ne la sa kaw suñuy maam yépp a nga foofa suñuy maam yépp a nga foofa ah, jàmmalaay maam Mor Binta ak maam yi say jigéen ñi ñoo fi jóge nga paru dem laayeen maam Mor Binta bi mu génnee àddina yóbbu ñu ko jàmmalaay maam Mor Binta yóbbu ñu ko jàmmalaay 1902 la génne àddina ndax tafsir ndike mam bàyyi laay def dafa waxoon tafsir naka peste bi koy moy lay la ak mam la ñom ñom ñom ñep 1902 la genn adina bo fa nga ne lañu la mam la nga fa mam tourta nga fa ngay ñew di ñew di ñew ba ci tafsir ndike ak Momar Samba أولهم والله مأمور بنت من الرجال ودفينك دواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دخواهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi fi teewoon mi leen di nuyu di leen ziyaara di leen it balwaax di balwaax bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ne moom la ñuy yëkki ci turu maire ndax arab dafay faral di wax ne inna rasula bi xadril mursili tey dañu fi taxaw ci kàddug maire moom bu fi taxawoon defe naa dafay doon njaboot comme ñun ni ñu doon njaboot ci kanamu kilifa yi nga xamante ne moom lañu fi fekk xam naa di jiital ci nuyoo bi rek Seydi Mbaye Laay bi nga xamante ne tey moom lañu ñu jagleel guddi gi euh, di si teg sunu kilifa Seydi seeni Gueye Laay di nuy it mbokk yi nga xamante ne moom lañu fi fekk sunu jaraaf Pédar Sarr ak ndey ji réew usmaan Silla ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi doon ñëpp ay kilifa ñu nuyu leen ci turu maire maire waxoon na nag ne moom bi ñuy yeew baas yi sax dafa bëggoon ñëw pour ànd ak yéen ndax li gëm mooy lu diine mënul defar àddina bi ndax fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul masaakili dunyaaha wa uxraaha bu dul yonante bi rek àddina bi du dem donc nag lépp lu ñu bëgg a liggéey ci àddina bi bëgg ko jagar rek nan ko teg ci diine yi yonante bi loolu moo tax bi nga xamante ne yoof wóolu na ko ba jox ko kàddug yoof mu doon seen maire ñu waxtaan mu ne ma man de li ma gis mooy mandat bii pour ñu mën ko réussir il faut ñu aj ko ci diine diine nag dafa yaatu ndax diine mooy mën a defar nit bu defaree nit nit defar àdduna nit defar pénc ma ne ah loolu de vision la donc nag vision boobu nañ ci ànd liggéey ci la ñu ànd nii di liggéey euh, tey nag muy occasion bu ngeen ñu may ndax bu ngeen ñu mayee ñu mën a toog fii di sant sunu borom loolu ku la ko defal mënoo koo fay mënuloo ko fay ndax keroog bi ñu ñëwee ci maire bi ñuy waxtaan dama ne leen dey istajibu lillahi wa lirrasul mais kaña isan daakum li maa yux yikum bu fekkente ne li mu leen di woo seen njariñam sa bon bu leen fa kenn jiit mën na leen incha allah ñun kenn duñu fi jiit te loolu aussi moom moo ñu fi indi fii ci kàddu maire mu wax ne bu sañoon yu mel nii ñu koy répété ci dëkk bi ndax itam yëg nañu ne am na foo xamante ne kàddu yàlla bu fay jib musiba dana fa taaxu te loolu gëm nañ ko fii ci dëkk bi donk nag duñ ci guddoon ndax ñu ngi ci kanamu kilifa yi luñ ci guddal rek dafay gën a yàq wax ji lii sunu nijaay yi léegi wax Pape Seck wax dëgg yàlla dëgg la fàtte woon naa aussi sama nijaay di sama sanga Modou Ba Seck wax dëgg yàlla muy jaraaf Modou Ba Seck moom itam di kilifa ci dëkk bi donc nag loolu la maire waxoon ne bu ñu ñëwee dañ leen ko jatal di wax ne lépp lu mu ci def rek xeeb na ko ndax bu sañoon lépp lépp lépp lépp lépp moo koy yenul boppam ndax bu dul dara doomi daara la doomi diine la te yëfi yëfi diine la donc nag loolu mooy kàddu yi nga xamante ne moom lañ ne woon dinañ ko jotale wasalaamualeykum wa rahmatullah ñu may jaraaf mot ba mu sànni ñaari kàddu bu ñu noppee sunu jaraaf Pédar tëjal ñu kàddu yi bismillah aywa jaraaf tabaddal auzu billahi min aseytaani bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla jullit ci yonent yàlla muhammad ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm yàlla na ànd ak yéen waxtu wu nekk balaa may sori nag ci li ma bëgg a wax donte lu gàtt lay doon maa ngi tàggu sama kilifa sama wëy muy góor gi Seck mi daanal kàddoom léegi ndax yàlla mu ngi dogal mag ñi nga xam ne ñoo di Macky Séggeen yàlla teel na leen wan ne góor gi Seck boroom cër la kilifa la tey dina jiite njabootu Séggeen doonte am na ñu ko mag ñi ko mag ak ñi mu mag ñépp ñu ngi ànd wuufu si kilifteefam bon balaa may wax dara pap ma ngi lay ñaan jere jef sek sa kaddu yi mom dafa doy lepp luñ ci jema doli dafa fekk ñoo gantal kaddu rek ngir worma waye lim wax bu wax de doy wax deug yalla mat na sëkk may gërëm bu baax sanga bi ma ngi lay ziyara di la ñaanal yalla fanu guddou andak wër diko ñaanal njabootu yonent yalla Muhammad yépp may nuyu bu baax jaraaf Peder Sarr waaye itam di nuyu ndey jëréew Ousmane Sylla Sarr mais di nuyu aussi jaraaf Al Diagne ñooñu wax dëgg yàlla suñ leen joxoon kàddu wallahi duma jël kàddu ngir doyloo leen jàppoon naa ne sax ñoom lañuy jox ko du mu dey sëkk ndax ay nit bu ñu àndee woolunte mën nañoo tànn kenn mu yóbbaale ñépp géew te loolu la ñu fekk ci mag ñi nga xam ne ñoo ñu tette jiit ñu si ndomb yi ba tey ñu takk ndomb di ay kilifa loolu mooy suñu ndono muy rakk topp mag doom topp bon maa ngi leen di nuyu bu baax li tax ma jël kàddu wallaahi moo di cofeel ak ngërëm boo xam ne jaadu na ci man ma gërëm ko njabootu baay laay gépp ndax lii di almeeri Yoff yi am na jamono ci ginnaaw si bi ñu nekkee ndaw gën a nekk ndaw tuut tànk lool benn bay xulle ndiir moo daan gàddu mbay mi daan na ko bay weer ak lu teg ñu dem ba jamono moom mu làmb ci poosam moom bay xulle ndiir di fay ay baykat mën naa say lim ñu mu doon fay ñu ànd ak moom di bay ñun ñii moo ñu dugal ci loolu moo tax almeeri bi ñu nekkee ndaw lañ am cofeel ak yëg-yëg ne war nañoo bokk si ñi nga xam ne ñooy toppatoo woy dawlu yi loolu bàyyi Khoule Ndir moo ñu ko tàggat ñu koy ñaanal yàlla fan euh, ñu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xare ko aljana ak ñi ko si daan dimbali yépp doomam ñu bare ñëw nañ fa di ko jàppale di ko jox alal sama kanam ma fekkee mu di ko jox jaami yàlla yi bu paree yóbbu loxo keseem bon su ñu demee ba loolu daan am ñu daan ci sonn lool waa kër Baye Laye jog warlul ñu warlul yoof warlul Baye Laye ne dinañ ko toppatool njabootam ngi xam ne ñoo nekk ci biir yoof su bay jotee ñu jëkk kese sa ba boo demee foog ne fii tefes gu bees la suñu fa bàyyeekoo ñëw almeer yi belelaan suñu fa bàyyeekoo fu la neex lal basan doo fa gisam ñax loolu dañ koy sant yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla loolu si leeri Baye Laye ndax loolu dafay bokk si lii màndargaal rek Pape góor gi Seck wax ñu nangu de Baay Laay amul maas waxtu wu ngeen fa xëyee ku dul julli sax bu fa jaaree dana xam ne ñu jaar fii fa ñu wéeru ka ñu wéeru kooku amul maas ma koy wax baatu kaw moom laa waxoon keroog bi nga xamee ne euh, pare nañu bay waxtaan si jumaa ji ma ne saa su ngeen fi xëyee rek dina bokk si li ngeen dëgmal ne wallaahi Baay Laay amul maas ñu nangu ko nag ma tegoon ci ne la ma sama jur jàngal man maa ngi koy ñaanal yàlla daf ma noppal ci benn baat mais daf ma mettre à l'aise si benn baat daf ma teg si salaati xal mustaxima si benn baat muy El Hadji Omar Bey ma jur dañu jóge poor di ñibbi si ne si oto bi mu di ma poser question waaw xam nga boo bëggee noppal ko nooy def ma ne ah, nangoo liggéey rek xëy di ñafe rek di lu ne ma dugg ci mun ne ma loolu ngay wax yépp du tax nga noppalu ma ah, man de xamatuma li ngay wax mu ne ma boo bëggee noppalu si àdduna da ngay nangu dogalu yàlla baat boobu man moo ma defar si laa sukkandiku sama àdduna yépp dëgmal sama àllaaxira mooy lu yàlla def dama koy nangu rawatina ma juddu fekk wote bàyyi lay du ma nangu kenn ku ma si ëpp cër moo tax daayira bu ne jàpp nga ne yow rek laa amal affaire mais bépp daayira bàyyi laay wallaahi séq naa ñoom mbir ndax loolu mooy sama cër wane ne nangu naa dogal bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci sang bi tëdd fii muy sauvetage u bi yëpp yàlla na ñu ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokki leeram njabootam gi sant leen yàlla boo ne tuux ñu ne laayeen du tuux nga ne naan ñu ne laayeen du naan nga ne sàcc ñu ne taalibe laayeen du sàcc bon kay bu ngeen ne yéen a gën nangu neex naa gëm yu bon yooyu yëpp nangu nañ ne du ngeen ko def même ba si jigéen ñi si mbedd bi ñu ne ab laayeen du ko def waaw ku leen gën amul loola nag boroom ngëneel gii di bàyyi laay moo tax mu demee noonu ci leeram ngeen di naane ci ngeen di nàmpe ci ngeen di doxee moo tax muy feeñ si seen melokaan ku leen gis sopp leen man gëwma si àdduna ne am ngeen am noonu man maa ko gëmul gis gëw ko de bu amee it man je ne le crois pas maam a léegi nii wallahi azim du ma dugg sax ci domaine boobu tey mais yàlla na yàlla dolli sa leer xéewal gi nga defal yoof ci jumaa ji loo waroon na fayeku lu mu néew néew néew plus de dix millions nga laaj ci li nga ca laaj ku xam yàlla xam yonent bi xam ne wax dëgg yàlla taalibe Baay lay piir nga waaw yow ku ñu yar nga si diine yéen ñépp maa ngi sant yàlla bu baax sang bi nag dama koy beral nuyoo ndax xeebuma ci dara wallaahi ñëw na ba sama kër may ma fa tee ba mu ngi nii wallaahi azim bon nangu naa ne ma nit li may jaayante ci waa kër a Baay Laay jëm ci Baay Laay njabootu Baay Laay nangul nañ ma loolu ma xaw a fàtte rek Yaxya maa ngi lay sant di la gërëm ndax Yaxya laay Dieye sàmba ñaa Ibra ak waa ànd ba yëpp ba ci sanga bi eh, eh, sëñ Bas ñooñu ñu yar ñun ñu nekk ay parental ñoom ñu nekk fii di leen yooye waa Alaska ñoo ñu tett si àdduna ñoo ñu corrigé moo tax li ñu am a xës néew yaakaar na ñun xaw nañoo baax tuuti dañ leen koy sante yaxe yàlla na yàlla guddal sa fan wér sa cër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jox jaraaf peedar ndax moom it yàlla dafa dogal ñu am lu ñu séq ak moom mu am ay yéene ñu rëy ci bés bii nii xam naa ci biir kàddoom insha allahu rabbi dina ko ci feeñal bu neexee yàlla auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julli di maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam asantam euh, avant may tàmbali kàddu yi nga ma fëskee ne yëkkati su tey kàddu yi yoofu la du su may kàddu euh, kàddu yi El Hadji Babacar Mbeng di président conseil de notable ak kàddu yi jaraaf seeni géey di chef de village moom laay waxee fi ma taxaw di wax ne bu ngi naaw bu ma nuyoo mbooloo mi maa ngi sant bu baax suñuy kilifa yi nga xamante ne ñoo toog ci kaw di leen gërëm di leen ñaanal yal na leen yàlla may fan wu gudd ñu fekke lépp ànd ko ak yéen ndax ànd ak yéen vraiment dal na xel te ànd ñàkk ànd ak yéen it dara wóoru si ma di wax ni lamu mu daan wax demb ak barke demb tay la koy gën di mën feddali sang bi ma ngi lay ñaan la nga xamantene mom la ñaanon porte parole fi la taxawon fi wax ko ko ne ko porte parole mu ne man nam mané ko ñaan ak mam Kumba ndoy deug fa deug dépasser na di ngeen koy defé deug fa deug dépasser nako mam Kumba ndoy bësam war na romb lu raw lii li ñuy def ndax tey Sénégal fii ba fongol la mi ku nekk war na xam kan mooy maam Coumba Ndoye ndax tey bu ñuy wax ay maam jaara di tudda ñeneen ak ñeneen ñu ne maam Coumba Ndoye moo jur ki nga xamante ne moom la ñëpp topp mooy kii mooy mooy mooy kii woon démb mooy kii woon tey ñun mënuñu ko jël di ko teg ci ay tànt yu mel nii man toujours ma répété ko te li may wax duma ko bàyyi ba kër baa may sàngoo suuf nag tant que amul damay continuer di ko wax dama ni nañu fëskee ne ñu booloo ñun ñëpp ñu boole suñuy loxo maa ngi ci biir ñu ànd ñun ñëpp ñu yëkki turu maam Kumba Ndoye turu maam Kumba Ndoye dépassé na li ñuy def nañu orgaf beneen façon d'organisation boo xamante ne bi dana yee Sénégal gépp ce sera télévisé en direct Sénégal fu nit toog di ko dégg image yu maam Kumba di génn ñu koy dégg ci réew mi fépp fu mu mën ci doon loolu mooy li nga xamante ne man ñor na ma lool ma bëgg ko lool bëgg lool vraiment diina ji loolu ñu def ko muy programme boo xamante ne dama ni moo war a sut sax appel bi ndax maam ko mëndooyo jur appel bi bon nag dafa nekk loo xamante li war nañ ko jël jiital ko si lépp loo xamante ne mooy programme mu laayeen ñu jiital ko si doxe ko di ko def loolu ñor ma torop dëgg fa dëgg dafa ma ñor parce que li nga may wax nii dama koy sentir si sama biir xol bu ma ko waxee nag dina jaaxal ñu bari ndax man tàll ba Cheikh laa mais nag ab laayeen laa parce que dama ci juddu dëkk fii ci dëkk bi bon nag sama turu dëkk lépp loo xam ne moo koy yëkki ànd naa ca lool donc te Baye Laye mënuñu am leneen lu raw Baye Laye donc nag bon tey lu ñuy sagoo la te lu ñuy sagoo donc. war nañu fexe lépp lu tax ci moom ñu war ko wane yee ñi nit ñi xam kan mooy Mame ma Ndoye loolu dafa maa ñor bu ma si jógee nag ci loolu di sant ñëpp jaraaf Modou ba maa ngi lay nuyu ba may egsi dama la seetlu woon gisuma la woon maa ngi lay jox sa wàccuwaay di sant jaraaf àll ma la toog moom taalibe la si biir kër gi ak ndey ji réew Ousmane si la di wax ni ñu dey kontaan nañ lool lool si ñëw teew fii bés bi tey su ma war waru ma fekk Yoff de mais nag dëgg fa dëgg mënuma ko absenté buñ na bësa maam Coumba Ndoye bu ma ne woon France dinaa ñëw dinaa ñëw fekk bés bu pare dellu parce que dafa nekk loo xamante ne daf maa ñor parce que sa biir njaboot ak maam Coumba Ndoye laa dugg a jël fa soxna donc tey dama bokk ci biir kër gi saf si sàpp bon nag dama leen di gërëm yéen ñëpp di jéggalu si kàddu yi nga xamante ne yekki naa ko fi ngeen jéggal mën a si na ma ko waxee mais dafa nekk loo xam ne mooy sama xol la ma bëgg la ma bëgg nag yoof gépp bëgg loolu problème bi nañu xam ne du problème ko ñu laayeen bi de problème mu yoof gépp la may oo ñëpp nag ci loolu bés buñ ci tolloo bëgg ko organiser bëgg naa six mois avant ñu nekk si di ko dox di ko lijjanti di ko publicité di def lépp télévision yi Sénégal yëpp ñëw teew ñu génn ko muy daw si dëkk bi daw fépp maa ngi leen di jégalu wasalaam. jërëjëf jaraaf loolu yéeneem la yàgg na ko wax. yàlla na yàlla mottali te incha allah ginnaaw ba yow yaa ko mën a yaa ci mën a am yëg-yëg boobu asama ak ñun foo si taxaw dinañ fa taxaw ànd ak yow bu neexee yàlla.